ñu dem nag ba jege xare ba waaye guddi jot mm-hmm. ñu campé fenn ci benn xur mm-hmm. aw xur biñ ci campé xam nga guddi jot na faaw ñu tëdd nelaw mm-hmm. yonte bi wax ñaar ne leen yéen yéenay garde di nga am armée bi pour dara bañ ñoo bett mooy ab na abbad ibnu bisr ak na abdullah ibnu masud masud dogal nag ñoom ñaar it ñu waxtaan sayidna abdullah ibnu masud ne ko léegi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 dale wor ne yow mom li nelaw yi mom indi wo ko yóbbu woo ko lo lo nga xam amna ko ko indi ko ko indi moy kan yalla mm-hmm. fofu da nga war fàttali ko yalla motax yonte bu massa bu massa juk day santar yalla wax ni alhamdulillah mm-hmm. alladhi radda ilayya ruhi mm-hmm. yalla bima ma mang koy sant maa sant kon fu mel non bo jógee lu mel non bo nelaw ba yow war nga sante yalla xamne nelaw fi ne man nga continuer rek yalla mi la yaat nak lolou war nga fi ko yalla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 quantité ak qualité bi nga xam mom mo deppok sa jëm la mm-hmm. ko sun borom defaree ne bu gënono dis comme diw yi do ci do ko mëna a jëfandikoo doo ko mën di naan mm-hmm. bu gënono a bu ëppit du bax ci yow mm-hmm. waye yalla da ko def bam bam yam ci ni ko séram bëgg kon lolu saa yoo ko jëfandikoo mo xam da nga cee jàpp wala nga sangu ci wala nga naan ko war nga ko war nga sante sun borom war nga fàttali ko sa borom ci sa ci sa xol dégg nga motax yonte bu sa genn ci place bu mel noonu mën wax wanak am na lu mu ci jàngale da nga wax ni alhamdulillah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 te te lek gi fi ne boko xolé ba ci bir lepp xéewali sun borom la ndax lek ben mu doon lo xamni ko baye ci souf si mhm. wala mu doon lo xamni ni la wala sow mhm. wala mew mu joge ci ga mu joge ci jur gi mhm. te len lo ci def amut deng nga len lo ci man sotal sa bop ci lut carton sun borom amut taw bi sun borom mako wacc souf ci tam fi nga ko fek nga baye ci rek mu ñor li ci dessine moy jur gi ni nga nga rat ki wala nga ray ko yoyu nak xewal yoyu nak kon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 kon loolu ak cant yàlla masan loolu lu lay fàttali suñu borom la mboolem li ma bëgg wax lépp loo waxtu wu ne yaa ngi gis loo xam ne lay fàttali sa borom même gis bi saa yoo xam ne yaa ngi mën a gis dara war nga sant yàlla ndax am na ñoo xam ne mënuñoo gis te boo gisut lu bare bare da ci topp ay problème yu bare bare dañ lay wommat lu bare si ci yow dañ koy xam sutura su bare bare da nga am doo ko amati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 qasida itam lepp tuddu yalla la hmm. te day tuddu yalla gi gëna fort hmm. di ñam wo xamni ni xamni seigne touba suñ tubaa ko préparer mu neex lool te te gaaw te gëna wër hmm. te du te, du def kenn lenn amul ay ay effet Yoham xamni da ko def ci yaram secondaire effet secondaire comme ni nga mi nga motax kon xasida itam lo ci man lu ngatt gatt bul ko xeb bul bul mbir mi nekkul ci bi seen nga jang lim bu pre ci ay lum neew neew ta nga jang ko jang mu tey moo gën jëlal sa xasida lu mu gàtt gàtt lam yabdu mithlul mustafa muhammadin sirran wa jahran fi baraya samadi jang ko ñang mu tay mom mhm. bam mhm. ag nga dem sa yoon mhm. de nga bu la neex sax bul jël xasida yu bari man nga jël gen rek bi set nga jang ko man na bu masalan bu guddut ci yow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 mooy guddi gi ak bëccëg gi mm-hmm. sëñ Abdou Khadre nag la waxoon mooy laa ilaha illa allahu sayiduna muhammadun rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallama mm-hmm. boobu rek ngay def ak jéggalu yàlla mooy astaghfirullah al azim mm-hmm. nga def ko juróom-ñaar fukki yoon par par bis parce que sëñ Tuubaa boo seetee ci Euh, wirdul makhus juróom ñaar fukk yoon la def istighfar la wax ne lim boobu la ci yoon la ci def te yonte bi alayhi salaam lim boobu la wax gis nga alquran in tastaghfir lahum sab'ina maratan juróom ñaar fukk yoon moo tax ñaar fukk lim bu am solo la bo xamni seigne touba mom moom la jëfandikoo ci wirdul makhus moo tax ma japp ne kep ko xamni itam euh, saxal nga ko par bis yalla na la far sa bakari yi nga yi nga yi nga yi nga amé yépp moo tax kon nit yow bu fekkee mënul lire dal yamal ci ñaar yi la ilaha illallah témèr ci bëccëg bi témèr ci guddi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 manam su fekkone ne bi mi daw jappandi wul ko ngir mu meuna genn kon musiba dana ko dal ndax mom mom mom lolou day lu sonle lu lu lu lu lu lo lo moo tax nga don wax yep di alu am solo nga xam ne fa tollo jam bu fa tollo euh, daa war a ne li posen la bu nekkon ci biram sun borom kàttanal ko mu meuna genn ba nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam lepp lu mu daan def bu dan dugg ci euh, toilette da dan tuddu yalla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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته